asalaamaaleykum mbokk Boustan ba ngi len di nuyu bu baax ku ci nek ci turam ak santam di nuyu bu baax mboolem responsable politique yi mi fekk yëpp bàyyuma kenn su ma ci nuyoo suñu frère suñu xarit damlo Lo nuyu bu baax tamit responsable politique yi nga xam ne. dañoo nekkoon di yëngatu ci leneen waaye tey yu ñëw di jàppale coalition Benno Bokk Yaakaar pour xam ne élection législative élection yu spéciale la la yoo xam ne élection nationale la ñu futteeku ñoom tam ñëw jàpp ci liggéey bi loolu li muy wane mooy saan yëpp ñi nga ànd tey pour ànd coalition Benno Bokk Yaakaar liggéey ci biir quartier bi liggéey bu am solo ne wax naa ci jotaay yi nekkoon léegi yu bari ci ay jëf yoo xam ne la président Macky sàll moo ko def fii ci biir Kaolack ñu war a taxaw pour jàppale ko pour mu am majorité à l' assemblée nationale pour mën a yeggali sëmb yooyu nga xam ne sumb ko ci biir Kaolack loolu doomi Kaolack yëpp ñoo war a taxaw futteeku pour mu am assemblée nationale pour mën koo yeggali. wax naa ay yoo yu bari yu am solo ci loo xam ne président Macky Sall def na ko ci Kaolack te loolu assemblée nationale moo koy voté kon ñun dañoo war a taxaw pour fexe majorité bi nga xam ne moom la coalition bi wut ñun ñëpp ñu ànd liggéey ci fexe ba coalition boobu am victoire bi nga xam ne moom la bëgg muy quatre-vingt pour cent ci département bu Kaolack wala sax région bi yëpp ñu fexe wutal ko ko ba li nga xam ne moom la sëmb ci Kaolack. ci assainissement université Alaaji Ibrahima Niass autoroute Kaolack Dakar projet yi nga xam ne yeneen yëpp mi ci biir Kaolack ñu man ko mottali ci jàmm loolu élection moo ko mën a rek ma ne wax naa ay yoon duma ci delluwaat ma ne fii ci biir Kaolack suñu mbokk yi nga xam ne ñoo nekk côté Ndorong jàpp xaaxum jëm biir Kaolack xam nañ ne Macky Sall am na lu mu def boo bii daan jot ci nawet kenn ci ñoom laal suuf. loolu Macky Sall moo ko faj Macky Sall moo ko réglé élection législative du élection locale élection locale élection nawetaan la waaye lii élection nationale la ñu war a taxaw dimbale Kaolack jàppale Kaolack xam ne lépp luñ def lu may dimbalee coalition bi tardel Kaolack moo ci ëpp ak tardel population bi ba nga xamante ni lépp luñ bëgg def ci Kaolack doo ko mën a def ndax tey su fekkee ne keneen moo amoon majorité mooy ne feeg ñaari loolu nag damaa yaakaar na ne waaye bu nekk war naa tax nga futteeku xeex pour sa réew pour sa dëkk pour sa quartier pour fexe li nga xam ne moom lañ bëgg a am ñu am ko ci jàmm. du ma guddal kàddu yi parce que programme yi dafa bari waaye fii responsable yi nekk ci biir Boustan tey ñoom ñëpp nga xam ne ñi ngi taxaw pour dugg ci biir combat bi dama ne loolu buñ taxawee ak ñi fi nekkoon démb ci démb loolu xajuñ ci élection kon nag maa ngi leen di invité ñëpp. ngeen boole seen bopp boole seen force dama la oo nga ñëw toog ñu waxtaan takkatoo déggoo jël kàddu jox la jox ko ko boobaat léegi dara teggeeku ci tey ci tey nag waxtaan naa ak Rahma bi may dox tànk yi wax naa la ko bi mu paree nag woo naa la ma doon na laaj loo ci xam ma ne ko ah li ma ci xam de mooy ginnaaw ki àndaloon demut te ñun nag ay citoyen lañu ñun foog ñu wote. fokk ñu wote te Sénégal gii ñun ñoo ko bokk mu avancé rek bëgg kon dañuy seet ku ñu doy ñu ànd ak moom ginnaaw nag Mor Ndiaye sollicité nañu nañu ànd ak moom liggéey waaw Mor ma di la wax ne tànk yi nga gis nii waa Medina Baye ci biir waa Léona da kay Abou Diallo ñu ngi ci biir waa Kaneen ñu ngi ci biir waa kon ma di la xamal ne Kulu mi boo ko jàppee ah, nga mbooloo mi te ragal naa ne ku xamul mbooloo mi man ngaa dem laaj ko monsieur le maire te bu soobee yàlla ñun buñ la xasee tànnal loxo lépp lu ñu wane woon benn daañu ko wane fukk bu soobee yàlla parce que mbooloo mi bañ dalee ànd ak ñoom ak léegi mosuñ leen a wax lu teggee waxtu wuñ ne leen nii la wala ministre bi nee na lii mës a kon nag ñun yow ñu xam la bu baax dund yaw yow Kaolack yëpp ba mu nekk xam nañ la bu baax a baax a baax a baax gis nga suñ marché Médina bee coow lee bari waaye ku ko romb ne mosu fee am ci Sénégal waaw lii am na ba tey suba dugal naa nit suma oto mu xool mu ne ma waaye yow lii lan la ma ne ko lii marché la bon jaay am na ma ko tabax ñu ne mosu fee am kon ñun xam nañ bu baax ba lay défendre di xuloo pour yow booboo àndul ak yow parce que man Medina laa dëkk ca wetu ma dëkk Kaolack xam bu baax di doxal waaye nag ne ma kaay ñu mitini wala kaay ñu dem ci yow nag yàlla may na la ko grâce ak dugal di ñaan yàlla nag nit ñi ñu gëm seen bopp mooy li nga nekk ko tricherie mooy nga ne gëm naa ni dem ñu voté loo gëmul loolu bu fekkee da nga nax mu njaaro